di nuyoo ko siyaar mboolem njaboote seexi seexul xadim yi ak mboolem xulafaa torox yi fu ñu mën a nekk ak mboolem umma islamiya kon Oustaz Khadim ñu ngi tàbbal suñu siyaar ci biir seen wéeg sa siyaara bismillah alhamdulillahi rabbil alamin bi ma yàlla dimbalee ci dalal ku mata di sëriñ Mouhamadou Guèye yàlla dogal itam ñu duppee ko sëñ Mourou sa Dieng di suñu lépp ci fépp di wajur ci suñu sëriñ bu baax ba Cheikh Mouhamadou Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacke Balla ay saburi euh, ñuy bàyyi xel sëñ Mourou ndaw ñi. Hmm. fas yéene waxtaan sëñ Bamba dafa def ab téere bu mu tuddee te sawudu sixaar. Hmm. daal di sa sa maytuhu te sawudu sixaar yi. Hmm. ilaa jinaani ilaa jinaani laahi zil anhaar yi. maa ngi téere tudde bii téere bii maa ngi ko tuddee yóbbalu ndaw ñi. ba ca àjjana yàlla mii borom yool sëñ Bamba. ndaw la jëkk tàmbali mbiram ngir yee leen teg leen ci yoon xam ngeen ni bu ñu seetloo ci ginnaaw dañuy gis ne euh, yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu woote diine al islaam ñu bari dañ ko weddi lu tax ñu weddi ko mooy dafay indi lu bees mag ñu weddi ko ñoom aboo jëhlin aboo hurayrata ñoo ñu weddi ko ndax ñàkk gëm ay waxam ak ñi mel ñoom ay walidu muxiya ñoom ci Makka mu xat lool moom yonent yàlla Muhammad bi mu njëkkee def gàddaay dafa jox saxaaba yi ñu dem xabasha ba ñu demee buur xabasha di najaashi daf leen ni yéen li ngeen di woote lu mu doon mu ni ko yéen dañoo am ku ñëw ci ñun ñu di ko wax muhammadu rasulullah mu ni yàlla moo ko yónni sallallahu alayhi wa moo woo ci wàllu yàlla ñu ànd ceeg moom dëppoo ceeg moom déggal ko bëgg ko lool waaye màkk gépp xeeb ko di ko doyadil di ko ñàkkal solo te ñun moom lañ gëm léegi mun leen moom li muy woote jëme ci kan la woote jëme ci ñu ko yàlla la woote jëme jëminu ci yàlla ak jaamu yàlla ak yoon wi ñu war a aw bàyyi lépp caaxaan dëgg ma lépp baax ñu ni ko waaw kan moo ko gëm ci ñi fa nekk ñëpp ñu ni ko ñun ndaw ñi ñoo ko gëm ak jigéen ñi ñoo ëpp ci ñoo gëm ñoo ko weddi nag ay mag lañu mën loon kon lislaam kaw lay jëm li muy woote ci kanam la jëm te du dellu waaye bu fekkee mag ñee ko weddi mag ñi ñoom dañuy dañuy faatu dañuy dem ndaw ñi ñooy màgg jëm ci kanam jigéen ñi ñooy jur xale yi kon ndaw ñooñu ci lañu tàmbalee sëñ Bamba tàmbalee ci ndaw ñi ñu yóbbalum ndaw ñi daal di leen di dénk ay ci muxaddima daal di wax ni yaa ayyuha sibyaanu laa tashtaxilu anil hudaa bil ulumi ishtaxilu fashaxilu bil xifsi wa tilaawa wajtanibu majaalis saxaawa daal di wax ni yéen xale yi bu leen yittewoo bu leen soxlawoo lu dul am njub te xam-xamit na leen yitteel ni ngeen soxlawoo jàng ak mokkal te moytu palaas yi way texee di kon Sëriñ Tuubaa ñu orienté ci yëm leen jëme leen ci jaamu yàlla ak topp yàlla ak def ndigalam bàyyi ay tereem mooy tege ci yoonu yàlla ak yonteelu Muhammad sallallahu alayhi wa day ci téere boobu lay commencé di wax ak ñoom ba yàgg mu leen xam leen yàlla fa kullu man baadara waxta si xar yi ilal huda istaraxa waxtal kibar ku góorgóorlu sa waxtu ndaw da nga noppaloo ci sa heure mag kon ndaw ci ngay góorgóorloo ci jàng ci ndaw ngay góorgóorloo ci liggéey ci ndaw ngay góorgóorloo ci jaamu yàlla ci ndaw ngay góor góorgóorloo ci def lépp loo war a def ci wàllu yàlla soo màggee da ngay noppaloo kon suñ Modou maa ngi lay laaj sëñ Bamba li mu wax ak ci nan lañu war a yar xale yi ak ci xale yi ci lan lan la ñuy dund ndax ba ñoo ba ba ñu la xamee ak léegi yëpp ay ndaw lañu ba ñuy xamante amante ay ndaw lañu parce que ñoo bokkandoo bu ñu juddoo ma xam la lool xa ràññee la bàyyi la xel ci lu bare bari waaye ci biir ndaw ñu ànd ci ba jëm ci mag ba léegi nag génn góor ci ndaw ñi maa ngi gis sa conférence barki démb nga def jataay bu rëy ci sëñ Bamba def jataay bu rëy ci dongo yi ak taalibe yi waaye kon nan lañu war a yar xale sëñ Modou ah, jërëjëf oustaz Khadim laaj nga lu am solo ndax ah, bindukat dañu wax ni kullu si saxnin kabirin kaan min xabu saxiran lépp lu rëy ba nga koy yéem mhm. ah, njëlbeen nga lu tuuti la woon mhm. mel na ni sama xaadima bi nga def jiital nga ko ci Assalaamy FM kon ndaw mooy nekk mag ndaw lu tekki nag lu lu tege ci yar ak teggin. Assalaamy FM. mooy nekk mag mi nga xam ni mooy mën a jariñ ummaam. mooy mën a jariñ réewam. mooy mën a jariñ ay waajuram mooy mën a jariñ ay bokkam. Mhm. ba tax na bu ñu bëggee tabax suñu réew. Mhm. li jiital mooy tabax ndaw defar ko mhm. yar ko te jàngal ko. bu ñu bëggee tabax suñu diine itam. dañuy jàngal ndaw yar ko. mag ñi itam buñ bëggee ëllëg buñ demee ba magal ba àgg ci seen doole di wàññeeku nga xam ne ci loxo yi ndaw yi la ñuy ne ñu teet ñu yor leen ni ñu yore woon ndaw yi la la fan féete woon ndaw ñi ndaw ñu féete leen fa buñ bëggee ndaw yu yaru yu tegg nu leen yor dañ leen di waajal loolu moo tax Seexul Xadim radiyallaahu anhu ah, teel a bàyyi xel ndaw da ko jógaale mm-hmm. def téere yu bari yoo xam ni daf ko tudde sax ndaw ñi bokk na ca bokk na ca téere gis sixaar bokk na ca te zawudu sixaar bi nga tuddee ti eh, émission bi bokk na ca te zawudu subaan ak yeneen téere yoo xam ni yu ci nekk sëriñ bi mi ngi ciy dénk ndaw mi ngi ko ciy digal mi ngi ko ciy xamal mi ngi ko ciy yar ndax yonente sallallahu taala alayhi wa sallam dafa wax ni saa bu doom juddoo mi judd ci fitara mooy ku juddu dangaa judduwaale kédu kédu weex tàll nga woo xam ni dara ko ci léegi nag la cay bindu waajur waa ko cay def moo xam ñoo koy def ab majuus wala ab nasaraan wala ab yahud wala ñu def ko ab jullit maanaam kéet gi daal boo ci bindee euh, xalima goo xam ni lànkar ba dafa ñuul moo cay ne bu lànkar ba soonee moo cay ne loo ci bind rek moo cay nekk kon ndaw bu ne bu ne ñokkee rek lu luñ def ca moom moo cay nekk Serigne Touba jëkkante ak ndaw def ci moom diine ak xam-xam wan ko fi war a teel a jëm fi mu war a def yitteem ak ko jubloom mm-hmm. moo waral mu wax yaa ayyuha sibyaanu laa tastaxilu mm-hmm. anil hudaa wa bil ulumi staxilu mm-hmm. ay étape la ko def da ko ni ay yee ndaw ñi bu leen soxlawoo lu dul ak njub waaye naka la ñuy def amul njub nag njub googu mu ni bu leen soxlawoo lu may moom naka fan wan yoon la ñuy jaar ba mu jub sëriñ bi ni bu ngeen bëggee amul njub wa bil ulumi staxilu da mhm. mhm. ngeen wuti xam-xam mhm. ndax kat ak njub xëy na manees na ko amee fu ne waaye fi ñu ko gën a yaakaare mooy ci xam-xam nag kon muy day wuti xam-xam hmm? mel ni wuti xam-xam googu ndaw ñi dañoo bëgg a xam wan yoon lañuy aw buuti xam-xam hmm? mu ni fastaxilu bil hifsi wa tilaawa na ngeen soxla woo mokkal wala wattu ak liir ak jàng ni nga ko soxla woo ndax xam-xam nag mu ngi dëkkee ci ku nu ngoo jàng te nu nga koo mokkal waaw mel ni dañ ko ni loolu buñ ko amee naka la ñuy def nag ba garde ko mu ni wajtani ba ma jari sa saqaawa na ngeen teet jitaay yu ñàkk muur yi jitaay yi nga xam ne moo jitaay yu texee di yi mooy jitaay yu ñàkk muur yi moo jitaay yi nga xam ni ku euh, fa toxaliwut yàlla toxaloo fa mbirum rasulaay sallallahu alayhi wasallam ak njàngale mag ñu baax ni mm-hmm. ah jitaay booba pertement lay doon ca ka ko teewee mm-hmm. kon jitaay yooyu mm-hmm. mu ni na ngeen ko moytu kon ndaw li bu bëggee jub day wuti xam-xam su bëggee am xam-xam dafay nu ngoo jàng te nu ngoo mokkal lam cay teg nag ba man koo sàmm mooy dafay fexe ba moytu jitaay way texee de yi ndaw li jóg di wuti xam-xam na moytu bépp jitaay boo xam ab fawukaay la ab caaxaanukaay la waaye dem ca ca ca jëli la sooba jóge ca dem ca ca ca làmb ca baa ca football baa ca yeneen mm. mu jitaay ñàkk mu yooyu mu ñuy nañ ko moytu mm. waaye sëriñ bi mm. ndaw loolu ba tey suñ sëñ bi bàyyigu ko ah daf ko tegtal daf ko wax ni ko boo amee xam-xam ba noppi jub ndaw li ni kon may def mu ni ko walaazimu man laa yasaalu abida mm-hmm. li rabbihi ilaa daw xayda mm-hmm. léegi nag bul gimmi rek ci xam-xam ni damay demak sa bopp. Mm. boo demee sa bopp amaana mm. ah yoonoo du sori. da fexe ba takkook mm. takkook ab jaamukatu yàlla. boo xam ni du dañ. di wëmmate ci yàlla ci ñu bëm nga. Mm-hmm. moo moo tax ñu ko wala azimu man laa yasaalu abida mm-hmm. li rabbihi ila uda xaayida mm-hmm. waaw léegi nag mu xamal ndaw ni ko. képp ku góorgóor sa waxtu ndaw. di nga nopp soxtu na fa kul man baadara waxta sixar mhm. ilal huda istara waxtal kibar kon balaa nit cee noppul waxtu mhm. waxtu magam mhm. dafay góorgóorlu waxtu ndoom jëm ci jàng ak mokkal ak wattu ak njub oustaz Xaadim kon sëñ Modou ni ma léegee euh, su ma ko seetloo jàngat lay mooy jamono ndaw ci ngay fàggoo sa lépp ci jamono ndaw ngay fàggoo Muhammad danoo jàngal ni murru awlaadakum bi salaati isaa balaxu sab'an wadribuhum isaa balaxu ashran wa farixul ma daa jeex hmm. xaadis bu wér la hmm. yonte yàlla Muhammad dani digal leen seen doom yi bu ñu amee sept ans hmm. juróom-ñaari at nga commencé diggal xale bi julli teg ko ci yoon di ko orienté di ko xamal kal ba baati njub ak jaar ci yoon ak baax ak ni ñuy jullee ndax julli dafa am doole lool te gis nga ci sept nga koy commencé di jàngal sa doom waaye bu amee fukki at nag wadribuhum izaa balagu ashran su amee fukki at na ko duma ci julli kon sëñ Moodu mm. kon ci ndaw la ñuy formé xale mm. te asalaatu tanha anil fahshaa'i munkar yooyu ay alxuraan moo xamal ni inna salaata tanha anil fahshaa'i mm. wal munkar julli day tere lépp lu ñu sib ak lépp loo xam ne dañu dafa ñaaw soo ci yaree xale mu màggale ko ci njub lay jaar kon njub googu nga xam ne moom la sëñ Bamba wax ak xam-xam boobu nga xam ne moom la wax moom xale yi ci bara góor góor la ndax al ilmu wal amalu jawharaani li xayra yi daale ni yajlubaani xam-xam ak jëfe ko dañuy xëcc nit ki jëme leen ci ñaari crier nga texe ci àddina te nga texe àlaaxira kon loolu ndaw ndaw lu ne war na cee góorgóorlu kon sëñ Mourou ñu bàyyi xel ci loolu ñu lay laaj itam lan mooy yóbbalu bi nga xam ne moo war ci xale yi kon julli ak jaamu yàlla ci yi jëkk la bokk waaye nan lañuy def ak yan xam-xam la war a jëkkee jàngal xale bi door koo jàngalee ndax danañ jàngale français di jàngale anglais di jàngale di jàngale euh, di jàngale euh, haalpulaar dem nañ bay jàngalee sax euh, yeneen langue yi ci ci ci ci ci xeete xam-xam yi ci luxa luxa luxaat yi langue yi pël naar ak yeneen yu baree bari dañ koy jàngale ak ay sonankeeg yu beneen. Hmm. waaye lan lañ war a jëkk jàngal xale bi ci ati ndawam. pour ñu xam nan la war a def. waaw Oustaz Xaadim. Hmm. yónnente sallallahu alayhi wa sallam daa wax ni. Hmm. yar leen seeni doom. ci yetti mbir. juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yu toog bëgg waa këram ak jàng alquran. addibu awlaadukum ala salaasi xisaalin. xubbi nabiyikum xubbi ahli baytihi wa xiraatil quran kon mel na ni. ndaw li li nga koy jàngal force nga teel ko ci yar ngir mu bëgg ko mm-hmm. waaw da nga koy yar ci bëgg yonent bi mm-hmm. bëgg waa këram mm-hmm. waaye yar ko itam ci jàng alxuraanul karim kon euh, xam-xam yépp ba ñu cay dox jëm dana war a jëm ci xam-xam bi nga xam ni mooy maadatu kulli ilmin mooy matière moo moo mooy ndey matière yépp muy alxuraanul karim kenn na ko suñ boroom waxe woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca ba mu nekkee ca xaaru xira te yebal ci moom euh, malak malak mu ñuy wax jibril mm-hmm. ah da ko ni boo demee ne ko iqara mm-hmm. iqara jàngal mm-hmm. waaye ci lan lay jàng mun ko bismi rabbika waaw kon loolu day wane ni ndaw li ñuy jëkkanteeg moom def ko ci moom mooy teel koo jàngal ci turu boromam mooy jàngal ko alquran ba mu gimmi ca ndax boo jàngalee ndaw alquran ba mu gimmi ca su ca jógee laneen baneen xam-xam bu bu mën a tee war bu dikkee alxuraan dina xam nu muy def ak moom ah. la ca gën alxuraan dina ko tànn dëkkoo ko hmm. la ca gëyut alxuraan dina ko génne teg ci biti kon li ci gën mooy hmm. ndaw li bu ne bërët ci juróomi atam jëm juróom benn hmm. ah, nga nga toog ni nga xamee ni ndaw li bi mu gënee jamono ndawul jullit li alxuraan la jëkk a mos weenu ndeyam alxuraan bind mu di toqental di toqental ko noddu liqaam <laughs> ci nopp bi ah nopp ndeyjoor nopp bu càmmoñam door caa def tuuro <laughs> ah kon teel na na orienté ndaw ni ko kat mhm. turu yàlla wii mhm. boo ne ñokket bala nga jëm fenn moom ngay jëkk a jàng sëñ Faal alhamdulilah sëñ Modou mm. kàddu yooyu rafet na trop leer mhm. te itam li ma gën a yéem mooy fàttali nga wàttali xale bi mu juddoo li ñu war a jëkk ca def ci moom mooy toqental ndax da bind taat alxuraan jox ko mu naan ko door a ñam weenu ndeyam kon alxuraan na jëkk ci moom. su jàngee ci alxuraan ji itam. nga bisub tudd bi jot. nga nodd ci loxo ci nopp ndeyjoor bi. liqaam ci noddu càmmoñ bi. la topp nag mooy julli. moo tax nit bu mu nekkee ndaw diggante bi ñu nodde ci nopp ndeyjooram. liqaam ci nopp càmmoñam. dee moo ci topp dee su ñëwee dañuy jullee rek. amul kàbbar amul liqaam ndax amul amul nodd amul liqaam hmm. ndax nodd nañu bi mu juddee hmm. waaye liqaam mën nañu ci nopp càmmoñam bi bi nga xamee ni judd na hmm. kon kay taxawal julli rek la ñuy def allahu akbar daal di wax baati seer yi war a wax ci moom wax ñaan yi war a def ci moom ba mu mat ñeenti kàbbar ñu daal di sëlmal kon kay loolu moom diggante boobu nag jaamu yàlla ak góorgóorlu moo fi war ab jullit Mm-hmm. kon kay sëñ Modou kàddu yooyu nga wax dafa rafet lool lool lool lool lool mm-hmm. sëñ Bamba noonu la jàngale mm-hmm. te yonent yàlla Muhammad loolu lañu la ngeen ko bàyyi xel bëgg yonent yàlla Muhammad ak bëgg waa kër Rasulullahi ak jàng alxuraanul karim jëkkee leen ko ci xale yi ñu def ko kon loolu lu am solo la waaye kon xale yi ñu war a xool doon naa la ko xalaaj waaye dangay wax ni sëñ Bàmba nee na wa laazimu man laa yazaalu abida li rabbihi ilaa hudahu xayda na ngeen wommat ni ngeen takkoo hmm. ak ñi nga xam ne hmm. dañuy jaamu yàlla hmm. di wéetal yàlla te dañuy wommati jëme ci njubug yàlla ñooñu ngeen war a takkool waaw kon fan la xale yi war a dem ndax xale yaa ngi dem ci géej xale yaa ngi dem ci yendu yi xale yaa ngi dem ci podium yi xale yaa ngi dem ci lu baree bare ñu ngi jàng anglais waaye ñu ngi jàng espagnol ñu ngi jàng ñu ngi jàng turc di jàng itam latee ak yeneen langue yu bari waaye alxuraan la ñu war a jëkk jàng waaye ma lay ñaax nga toll tollinu ci loolu loolu mën a wax ci xale yi ak xale yi nga xam ne yaa ngi leen yor ba bërki dem bi ñuy conférence conférence ba yéeme lool di xale yu ndaw di wax ñëpp di waaru ci ñoom ak di yéemu yow noo leen orienté sëñ Modou euh, waaw xale moom li si jiitu ci orienté ko mooy nga fexe ba bëggloo ko li ñu ko jëmee da fexe ba xemmem loo wan ko résultat bi nga xam ni euh, mu natija bi nga xam ni ci la ci ci la moom lay amee ci li muy def hmm. waaw nit ki bala nga ko bëgg loo mbir mu bëgg ko da ko naa ñi ci jaaran dem bëkkrim nii la buñ xoolee ku mel ni Cheikhul Khadim euh, nga ni ndaw li Cheikhul Khadim yi ci alxuraan la gimmee hmm. xam-xama ko defar waajuram sëriñ Mbàkke Mor Anta Sali sëriñub daara bu mag la woon mhm. nekka mufti mhm. waaye waajuramu jigéen soxna ma Mariama Bousso ci fukki atam ci la mokkal alxuraan xattan wa tilaawa man koo bind man koo tari te du ko gis kon man na ko ci bopp ci anam yëpp mhm. nga xamal ko ni ko itam soxna jaara moomu man loolu euh, waajuram soxna Aysatu Waalo Mbàkke moom mottalim njàngam wala moo ko jàngal hmm. moo càmmiñam la sëriñ Mouhamadou Bousso hmm. ba nu géeju ci xam-xam léegi wan ko nag xam-xam boobu sëriñ bi doon biñ ko nàmpatalan lan lan la fan la xam-xam yóbbu sëriñ bi hmm. alxuraan fan la ko yóbbu waaye soxna jaaraat mi waajur Seexul Xadiim naka la jàppalan ci alxuraan ba doom yi gimmi bëgg ko ndax fi ne nii yaay bari lu mën a def ci doom ndax yow mi sa wóof sa doom muy téen di la xool kàddu yi duñ koy tëgal kàddu yi ngay wax ci moom dafay daf koy arrêté dafay tàppe ci moom mm-hmm. soo dee woy woy la boo dee taasu taasu la am na xale yoo xam ne bi ñu dimmee mm-hmm. li ñuy jàngi alxuraan mooy jàngi ayatul kursi yi lan moo tax <laughs> seen yaay da di tëgale ayatul di leen ko tari ñu koy dégg ba nga xam ne bi ñuy jàng wax allah la ñuy tàmbali di ko wax ah? nga xam da nga yéem gone gi ci jàng gi mu ko jàng tar gi mu koy tar mu def ba mokkal ko mm-hmm. dangaa fàtte ni yaayam moo ko def ci moom moo tax soxna jaara keroog buy dem kër mhm. ñu ne ko boo demee looy def mhm. ndax it sañ xaarim mhm. wal baladu tayyibu yaxruju nabaatu bi rabbi munoo am njaboot gu baax te di amoo pàkk bu baax ak jiw bu baax dangay am jiw bu baax def ko ci pàkk bu baax ah door a am ah, gàncax gu baax yénente noonu isa raaytum mantar daw na diine waqaloo fa sawi ju mm-hmm. su ngeen gisee koo xam ne diineem ak jikkoom doy na leen mm-hmm. na leen ko may soxna bu leen ko ñaanee mm-hmm. mu dellu wax fële ni tunkal marali arba des na tànn takk jigéen ngir yent ba ma ciy teel mooy faxtar bi saati diin na nga jël ki amee diine ndax boo ko jëlee kat taribat ya dàkk sa kalpe réerut dooloo sa loxo cëkk kon léegi ki nga xam ni jikkoom rafet na te am na diine soo ko booleeg soxna soo xam ne moom itam am na diine lu fa juddoo ci njaboot day yomba day yomba defar moo tax seexul xadim mm. yomba teg ci yoonin ko teg mm. ba mu di ab juddikat bu mag ndax Mamour Anta Sali ni meloon mm-hmm. ak soxna Mariam bu so ni meloon wax naa la soxna Mariam ak keroog bu ñu dem kër mm. bi biñ ko nee looy looy looy def dani na nan ma jox kaamil oh. kaamil ba mu bindee leen soxna Aysatu Waalo lan ko jox kaay dem bind leen ci waxal boppam <laughs> loolu ko yaay moom la ko jox mu ni gars yi yam ca la suñu borom wax ni Muhammad euh, du bàyyi kenn ci seen gaay yooyu waaye ndawal yàlla la te moo tëj ñu ni yónni ginnaaw mu ab yónni du wàcc soxna jaar ni alxuraan gagal na ma Mhm. damaa gàgg aay bi moom a gagal mhm. waaye su fekkente ne du aay bi man foo ñëm naa fam ab yonent wa maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum su doon ak loolu eh, mhm. ma xam ni danaa fam yonent allahu waaye su fekkee ni damaa fekki woon jigéen ña ña jur yonente ñuy sànnantey battu di ab leen tey tame yàlla yónni ab yónni ab am malaaka mu indi garatu mu buwa du teggi sama nekk waaye su fa dikki jógee du dugg beneen nekk waaye fa ma jëm dinaa fexe ba aw liggéey fa ba am fa koo xam ne fu mu tuddati yónente bi tudd ko Muhammad Rasulullahi xaadim Rasulullahi waaye li ma bëgg leen wax lépp mooy <laughs> xam-xam bi nga xam ci soxna Jaara Gimmi ak so ak sëñ Moodu sa càmmiñam te soxna Astawaala def ci lu am solo ci leen ginnaaw bu mu ko mokkalee. sëñ Mourou Bousso sëñ Mouhamadou Bousso ah, ah. mook soxna Jaara ñoo bokk Aysatu Waalo ak ma Bousso Awa Mbaay Ahmadou Bousso ñu ko wax ma Bousso Awa Mbaay hmm? ah. nga xam loolu boo ci doon dox. Mhm. da ngay ciy gis ay kiimaan yoo xam ne ndaw li nag boo ko xiirtalee <laughs> wan ko loolu. <laughs> Ah, wanoo ko ñeneen ñi nga xam ne ay fokkat lañu. ba nekk ca lañ ca doon. wan ko kii diine defar. kii yiw sollu yiw. Mhm. toog fu yiw fu mhm. féex. ñu dikk di ko ndokkeel ak ñëpp di taas ci barkeem takk la xasaay di ko dawal. ah kooku ni mu def ni balaa ki nga xam ne balaa tedd nu toj gémmiñam baa nu toj bakkanam baa nu toj bëtam mhm. hmm? ku ci gën a ku ci gën a tedd bokkuñu ah bokkuñu de moo tax am Serigne Touba sañ na wax ni rafaani alquranu raf an xafada man sahu taqaadum fi xafada waaye nag da caa gimmi rek mhm. dañ ko caa dañ ko caa toqi mhm. tàggat ko ca ki kaw oh. def nag mooy soxna Mariama Bousso kon wal baru tey bu yaxruj na baatu bis na rabbi yi buñ bëggee ndaw lu baax it nan am waajur yu baax dëgg la xaarim xam nga yàlla subhaanahu wa taala ci mbaaxam nga ak màggam nga moo tax foo wul foluwul wa maa xalaqnaa waa samaawaati wal arda wa baynahuma laa'ibiin yàlla nee na binduma asamaan suuf ngir fo rek kon yàlla dafa orienté nit ci jaamu ko ak ci euh, liggéeyal euh, liggéeyal ko liggéey bu dagan daal di ne la ngeen lekk lu lew ndax ci la leen dogal ngeen def ko ndax yàlla subhaanahu wa taala loolu lañ jàngal ñu jëfe ko kulu mina tayyibaati maa razaqnaakum lekk leen ci wërsëg yàlla wi li ma leen wërsëgal ci ay teey kon ab safaan bokku ci ndaw nag yóbbu ndaw yi dafa bari nag ndax ndax xale yi ñu ngi dem ci baal yi. waaw xale yi na naa la ñu ngi dem ci baar yi. Mm-hmm. xale yi ñu ngi dem ci gaal yi. Mm-hmm. ah di lab ci mm-hmm. géej gi. ah naa Barça wala Barcelona ak nangam nangam. ak yeneen ak yeneen waaye xale yi lii di yóotu dafa bari. waaye nag loo leen di orienté. pour ñu gën a jubbati seen tànk yi. ci fi ñuy wuy gi ak fi ñuy dem te kenn wu leen fa. ak ñan lañ war a roy. ak ñan lañ war a moytu bu baax. ndax loolu mooy njëmbati xale. maasaa yi jiw àllayhim ayaama tufuula kon jamonoy ndaw. xale lu ko war. Mm-hmm. ci jamonoy ndaw. Mm-hmm. lan moo ko war ndax xale yi dañuy da ngay da ngay xool mbedd yi. Mm-hmm. xale yi ñu ngi football. te sëñ Mountakha sant naa ko fi. xale yi ñu ngi dugg ci ay ay ay ay ay ay ay ay carte yu ndaw xaw ma carte la xaw ma ak ay lido ak yoo xam ne dañ koy def ci ay xeeti caaxaan yoo xam ne kenn sëtu leen ko ndax loolu xale yi ci lañ war a dem wala ci lan nga leen di orienté pour ñu gën ci jublu waaw xale yi ñoom <laughs> sëñ xaadim sëriñ bi orienté na leen boppam ne leen wejtari ba majalis sa xaawa jitaay yi nga wax yëpp ci majalis sa xaawa la bokk ah, kon buñ ko moytoo rek euh, dañuy daal di tege ci njub ga mm-hmm. ndax ñi nuy roy mm-hmm. su fekkee ni roy gi dëgg la mm-hmm. ah buñ leen royee barab yooyu nga wax yëpp suñu tànk du fa jam dëgg la hmm? dëgg la euh, la waykat boo xam ni hmm. taasil illah wa anta tusiru hubbahu hasalam ree fil xiyaasi badian dëgg law kaana hubbuka saadiqan la ataatahu inal muhibba liman yuhibbu mutia hmm? su fekkee ni da ngay mooy yàlla ba noppi di wane ni da nga koo bëgg muy loolu dafa yéeme mu ni sa mbëggee gi bu doon dëgg uh-huh. da nga koy topp ndax ku bëgg ku nekk day topp lu mu bëgg kon suñu gidd yi suñ xañoo xañtoo seen i jéego mm-hmm. barab yooyu dañ ko dul xam sax ba di fa dem mm-hmm. Cheikhul mm-hmm. euh, ku ko mas a jox ndaw bu weesuta jàng daf koy la muy jiital ci moom mooy jàngal ko alxuraan bu noppee jàngal ko xam-xam su ndaw li dikkee te fekk indaal alxuraan ju set te xelam néexut nga xam ne neexut a jàngal wala mu weesu wala mu weesoo dal mm-hmm. wala mu weesu ko ndax mm-hmm. am na ñoo xam ne dañuy ñëw ci wees weesa a dal mm-hmm. baa mu toll ci dal waaye xel ma du neex luñ ko wax du ko mën a ko fin sëñ Tuubaa dafay jaarale jàngal ko ci ay tomb ak i rëdd ak junj ba mu tàbbi ndaw li bu baax a baax su ko defee nag euh, ndaw li buñ ko xamalee ni ko euh, la nga mën a am ca fële ngay jëm boo boo nekkee fii mën nga ko fee am te dañ ci amaale yàlla Hmm? xanaa xamoo ni ndaw li nga xam ni dafa takk ay dàll moom dëgër hmm. départ fii hmm. jëm aw xelam doo fukki kilomètre ak nangam nee na day defar yaramam boo ko noonu li ngay daw pertement la waaye boo ci doon seer bi yaa ngi ko ci jéem a defar waaye boo taxawoon ni tey damay julli fukki rakka ñaar naa fi la ko <laughs> li nga li nga doon def lépp yaa ngi koy def ci sëgg géeg si géeg yooyu yëpp yaa yaa ngi ko ciy def te da ci amaale yàlla. <laughs> loolu de moom hmm? <laughs> loolu de moo <laughs> moo jaral loolu moo lépp suñ borom lépp lu ciy defar ngir tàggat yaramam hmm. yàlla defar na ko ci ci ci ibaada hmm. nga xam ne nga ci amee yor suñ borom ba noppi seer ca defaroo sam xel ca defaroo nga nitee ca dëgg la waaw julli ca la bokk lépp lu waa ji def ay xeeti xarakaat yooyu ngir defar yaramam xoolal julli rek ci sëgg yaag sigg yaag toog yaag taxawaay ya mm. ah, te dañ ci amee suñ borom tabaaraka wa taala mm. kon ndaw yi danoo war a joy jëm ci daara yi jëm ci jitaay yi nga xam ni mooy jitaay yu texe yi te moytu jitaay woy texee mm-hmm. yi xam ni Sëriñ Tuubaa noonu na ah, te li koy may mooy jiital xam-xam bi nga wax rek noonu yaa yaa subbaan mm-hmm. in xiiftum xajal mm-hmm. fa fa xaddimu taalaman ala amal yéen waxambaane yi bu ñu ragalee gàcca mm. na ngeen jiital xamlu balaa ngeen a jëf. Mm-hmm. fee am na ku toog ni man sama ndaw du jàngi alxuraan. mu mm-hmm. ne ko bi ca daara yi na nga bàyyi xel nag. Mm-hmm. ndax ndaw ñu yóbbuwul leen fan yóbbuwul seen bopp fan yu jàngi dañ yóbbu. ni sama doom ko yóbbu ndax dina nekk ab ministère. ndax dina nekk daa nangam. ndax dina seere nangam. Ah, ah, ah, xam nga minhum mahabatul jaahi mm-hmm. mahabatul maali mm-hmm. mahabatu suhra mm-hmm. waaye mahabatullahi tabaraka wa taala te mooy lépp solo moo jiitu sax kon nag ndaw li moom dañ koy orienté rek tàggat ko am na loo xam ne buñ ko ca tàggatee euh, du tus soxla leneen kon moo tax sëñ bi wax kooku di tere ndawam ni ko du ko jëmee ci yàlla ak du te te mooy doora ko ci xam-xam sëñ bi ne wa man nahaakumu ani taallumi foo xalifatullahi nil mujrim képp ku leen tere xamlu mooy xalifa seytaane feere ko ci weneen bayit wooni wa man nahaakum ani taalumi fa nahyuhu ila dalaali yantahi wallaahi dëgg la musiba la kon mhm. <laughs> ndaw yee itam ñi leen dimbali mhm. mooy mag ñi feexe ban gimmi rek ci xam-xam mhm. xeeta leen ci woon leen ku mel ne Cheikhul Xadim comme ni Sidi Alxaaji Malick mm. mag ñooñu mm. ni leen ñii daal fii leen amoon awoon ba aw ba am lu ñu am yaakaar naa yi cër bu toll noonu mm. kenn gisul foo ko waaye fàggoo boo ko bëggee nag da daal di nocc ca not euh, xañtu seen yoon rek xaw ca jeexital yi dëgg la sëñ Muntaxa Mbàkke mii di xalifa général des mourides di suñu kilifa nga xam ni <clears throat> moo fi nekkal sëñ Bamba Xaadim Rasuul ak ndaw ñi gi mu dox ci ron ay papaam ay wuy juróom diggal gi mu leen ba ay waxam da ciy nettali ba ma ne ci këram sëñ Abdou Lahad Mbakke hmm. te mu doon ko teg ci yoon hmm. di jamono ba ma nekkee ci këram sëñ Fàllu Mbakke hmm. di fàttaliku jamono yu mu nekk ci sëñ Saaliwu Mbakke ba ni mu nekk ci sëñ Sidi Muxtaar Mbakke ba ci sëñ Baara Mbakke mu nangu rek di ndaw luy góorgóorlu ci wàllu yàlla ah, kon mbokk yi suñu góorgóorloo ci wàllu yàlla danañu dem danañu dem ndax ay caaxaan mooy moytu mag ñi ndax mag ñi ñoo fi defal démb ñoo fi defar bërki démb te du fi jóge mukk kon loolu moo tax ba léegi ñuy tukki tukki Sëriñ Bamba moom ci boppam dafa jàpp ni yonent yàlla Muhammad moo ko jàngal li mu war a xam lépp Sëriñ Bamba dem banaan lam yabdu mislul Mustafa Muhammad sirran wa jëhran fii baraaya samati madda lana al islaama wal kufra maha wa bi nasihati li kulli samaha Sëriñ Bamba dañu yonent yàlla Muhammad daal ku mel ni Mustafa moom mësta feeñ te du feeñ mukk ci li feeñ ak li nëbbu ndax moo nu jox lislaam te moo avancé kéefër te lépp lu ñuy laay biir ak tege ci yoon moo nu ci orienté yaquur bi wal wal baatini man ataahu lillahi fi kulli zaman nee na yonent yàlla Muhammad ca yar ca yiw ga ca mbaax ga ca ngoor ga ca man ga loolu moo tax mu teg lu ci yoon woo xam ne topp yàlla ba jamono bu nekk duñ ñëwaat ci yoon te yonent yàlla Muhammad ndawam gépp ci yàlla la ko def dund ci lool orienté ci ay ndaw ñi mu lan ak ñi mu àndeelan te daray caaxaan yunteel man mosu cee dem bu ñu masaadi dem ci baalukaay yi wala ci baar yi ñuy naan ndax dañ am na pare bi daan naanee sàngara mësu mm-hmm. koo def moom rasulullaay te ndaw la woon mm-hmm. déggaleen ay kilifaam mm-hmm. toppan leen yéeman leen nag ndax yàlla da ko bind bindoo boo xam ne kenn melul ni moom ci taar ci melokaan ci jikko ci doxalin ba lenn caaxaan mosu ko am waaye sëñ Sidi Moxtaar Mbàkke moo sëñ Sidi sëñ Muntaxa Mbàkke fi nekk nga xam ni mooy rakk ci sëñ Sidi Moxtaar Mbàkke nga xam ni maanaam tànneef la woon njub ak jub ak jubal rek gi nga xam ni moom la président de la di woote ci loolu la jub ak jubbanti loolu mooy ay orienté nit ndaw ci njub lay war a dox tey jubal ay mbiram fexe ba lu dëng nga jubbanti ko te ci la ñuy jéem di ci góorgóorlu kon melokaan wi nga xam ni moom lañ xale il ndaw yi manque nàmp tey léegi ñu doon ay mag di ay kilifa di ay tànneef nan leen ci roy xool yoon wa ñu jéem góor góorlu ndax xale yi ba léegi xeeti fa yi comme wax nañ ne baaxut ay dem ci ca ca ca ca gaal ga ndax fu mu ne xaalis lañuy wër dañoo fàtte yàlla mi leen bind moo leen di wërsëgal dañoo fàtte ni yonti yàlla muhammad yàllaa ko yónni ci nun dañoo fàtte Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Mustafa mooy kilifa gi nga xam ne moo ni teg ci yoon wu nu war a aw di taalu bi te nangul ko mu ngi am mbooloo moo xam ne ay ndaw lañu ñu ngi tudd euh, Safinatul Amaan euh, sëñ sëñ sëñ sëñ Sidi Moxtaar Mbakke moo ñu ko tuddee woon turandooy sëñ Xaadim sëñ Bamba yi man maa ko ca jiite woon ca mbooloo ma ci ñi ñi ñi ñi ñu tànn ma jiite ko ca laa bokk mm. euh, ñu jógee Dakar ñëw ci sëñ Sidi Moxtaar mu ne yéen tudde naa leen safinatul amaan géej kóolute gi nga xam ne mooy lépp nga xam ne sëriñ bamba yi noonu lañ war a mel noonu lañ war a góorgóorloo xaadim géey bii di jàngkat nekk daalu xudus ci la bokk sëñ moo xaadim mbakki moxtaar ci la bokk waaye ñoom ñëpp nag orienté ndaw ñi ci baax lañu bëgg ak jubbanti leen ak teg leen ci yoon ak waa kër Sëriñ Abdou Lahad yi ak waa dëdd Ndakaaru ñu ci bari bari ñu ngi ci kon groupe la boo xam ne danañ ko gën a yaatal mm. bu ko defee mu nekk ay cellule fu ci nekk mm. waaye ñu bàyyi xel ki ñu doon mm. bàyyi xel li ñu doon bàyyi xel ñu àndal ak li li li ñu li ñu leen jiite ci yoonu Sëriñ Bàmba yi ñu bokk ci ànd xam ni donga bu ndaw lañ ci seen biir waaye ñu góorgóorlu ñun ndaw ñi te topp toppatoo ak baax te jéem a yar yaru yare yare jikko yi defaraat ko xalaat yi nga xam ne mooy ne ci xale te mooy bëgg tukki bëgg a ba dañuy dem ba bat dugg ci gaal gi dal di faatu mu jaral leen seen bakkan nga ni Barça wala Barcelone wala Barsaq loolu ci boppam du waxin nit day tëdd ci lu neex yàlla ak lu neex yonte yàlla Muhammad ak lu Sëriñ Bàmba di yaraate ba léegi mag ngaa ngi boo leen woo boo njëkkee ci ñoom di leen diglu dañ lay dañ lay dañ def leen Euh, sëriñ boo xam ni taalibe buy tarbiye dañ leen di tarbiye mooy ndonga laxasaay mm-hmm. laxasaay yóbbu la ci tooge ngay mm-hmm. liggéey mm-hmm. di xam heure liggéey di xam heure wàcc di orienté wu ci mbaax kon loolu suñ muru gis naa ci ay bunt yoo xam ni loolu ci mën a dolli nga fàttaliwaat ko ndaw ñi ci yoon wi ñu war a jaar pour gën caa dem ci kër sëriñ si ak yi ñu toppatoo incha allah kon ñu ngi lay delluwaat kàddu gi waaw da tudd léegi Cheikh Mamadou Mountakha ñuy ñaan suñ borom gën koo sàmm te aar ko waaye moom dafa jaar fay magam jaar ak ay waajuram xam nga sëriñ Saale mas naa wax ni jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la sëriñ bi defan ca mag ña allahu doonte yeewuma ko ma barkeeloo ko <laughs> loolu sëriñ Saali wax na ko boo demee xel koom <laughs> ay junni junni ay fukki fukki junni nga fay fekk ay ndaw yoo xam ni lépp xam-xam yépp daje na ca ñoom boo ne ubbilee magasin ya euh, léeg-léeg nga ubbi benn bunt kenn dañ ci mucc mujj day daanu ndax lépp dañ koy sarse ay téere ba mu fees yéen a ngi déglu waaw téere euh, kaamil xam-xam yoo xam ne yoo ndaw ñaa ko bind moo ne ndaw yooyee ko bind day dañuy dem tool su newetee ñun ca tool ya ñee ngay wommat ñee ngay yori machine jàpp ci musique ñee nga yori gopp waaye buñ wàcceet nekk ci euh, seen njàng moomu hmm. nga xam ni kiy wammatal jëwriñ ji mokkal na alquran jëwriñ ji ci ginnaaw téye machine beet mokkal na nga xam léeg-léeg nga gis koo xam ni aw bindam bindu bindu tëralam ci ci ci majaalis hmm. ba mu war na def ca ca ca ca daara ja ca ca xel koom nañ koy defee ca collier fas ga ma nga ca nekk borom machine machine ba borom machine ba ka tey machine ba naa ko yaa ayyuha sibyaanu laa di ko di ko teqata <laughs> ah tërbiye googu defar googu la sëñ mun defar ndaw ñi waaye itam moom itam da cee wuutu ay magam mm-hmm. wala sëñ Moustapha al Karim mm-hmm. nekkoon mm-hmm. jumaa ji bi mu noppee sëñ Cheikh Ahmad Fadal dafa dafa defaraale daara ci biir. fa sëriñ As Jaxate sëriñ Ala Jaxate teg fi. jàngal mooy jàngale. <laughs> jàngal na ma xam-xam mm-hmm. kon. Ah, loolu day wane ni ñoom wane nañ aw yoon. allahu akbar euh, mag ñëpp foofu la ñu nekkoon. sëriñ Suhaybu Mbàkke. fajar la daa toog moo daa jëkk a yeewu te moo daa mujj moo daa mujj a tëdd. allahu wax ni. neel baa ndaw mu ni baa neel siin mu ni siin neel miim mu ni miim. Mm-hmm. mu ni li ci dib yool yéenu ko sax doom ju jur. waaw dafa mujj. Euh, njab magam yëpp nawloo ko ba foofu seen njaboot jox ko boo dee lim waa kër Serigne tubaay yi bokkam yi boo dee xool ñi mu defar mhm. da naa kii man réew la jàngat dëgg la xoolal kii porte parole bi. bokk na ca ña fa hmm? ak ñeneen ak ñeneen. waaw sëñ Bachirou ak ñeneen ak ñeneen. waaw daanaka waa kër sëñ bi xaari daanaka ñoom ñëpp. ak ñeneen ak ñeneen. waaw sëñ Dame Diouf Belel mi doomi sëñ Thierno Diouf. Oh, Lambaay ak yeneen i kàngam yoo xam ne. sëriñ Soxay bu moo leen defar. yàlla xuraan ak xam-xam. Hmm. waaye fekk woon ak muallim bu mag. Hmm. ñu ko wax sëriñ Habibou. Hmm? nga xam ni <laughs> sëñ bi bu jàng na sëriñ Abdul Ahad jàngal na bàyyi jàngal doom jàngal <laughs> sëriñ <laughs> mag ñi di ko xëccoo mag ñi di xëccoo euh, sëriñ Abibu moomu hmm? waaw euh, ba ba ni mu takkook sëriñ Soybu hmm. ba tey ma nga ca ñu feggal sëñ bu ñoo bokk ca fan leen denc ca barab ba ah xam nga loolu oh. ah, ah, ah, ak ñeneen ak ñeneen oh. sëriñ Muntaxa nag aw ca yoon woowa moom lañ dikk moo dikk xam nga sëñ Tuubaa am na bay du waxoon ah, ah bil Moustapha la tàmbale yaakaar naa Moustapha banaalil xuduusu madrasatan mm-hmm. Mm-hmm. bihaa yusul asa wal jahlu wal kamadu waaw mm-hmm. Ah, ci daraja yonent bi yàlla tabaxal na ma daara joo xam ne réer ak lor ak njàqare da cay jeexe hmm? ñu koy jàng bés bu nekk oh. sëriñ Abdoulaye dikk junj. wallaahi lazim <laughs> tabax maktab bi yónni sëriñ Mudu Maamun ña ngi ci réew mi <laughs> téere yi xam-xam yu am njëriñ yépp mu dajale ko teg fa. yàlla xanaa xamoon maktab bi boo ca demee nuy jàngalee mooñ sax ma nga ca. Ah. téere buy jàngale mooñ <laughs> téere buy jàngale nu ñuy defaree cere. te téere buy jàngale nu ñuy defaree sibbi saab. allahu akbar. Ah. Ah. yëpp ñu ngi ci biir bi bibliothèque bi bu sëriñ Abdoulaye Hadj. xam-xam yëpp Serigne Ibrahima dajale dajale ko fi. wallaahi xanaa xam-xam bu dikkee des na ko jàng. ba sa jàng xanaa des na tabax daar ji ko jàng. mu ñuuree barab bu yaatu. ni fii mooy université bi. Hmm? si jiwaay. Oh. waaw daara ji. oh ah Serigne dikk. ci gisam bu sori. daal di koy woote. woote ga nag jommal ñëpp. ñu mu jëmale ñëpp mu tàmbalee fanweeri milliards ak juróom-ñaar. Hmm? ci benn projet boo xam ni. ab lal bu ñuy tëdd di yeewu ca ne xam-xam rek moo tax hmm? te mu ni loolu bu ñu ko defee ba noppi lu toll noonu lañ ci defaat ñu door ko mën a jariñoo kon ñaata milliards lay doon sëñ Mountakha keneen hmm? la ah, léeg rek am ñu engagé ni dañoo bëgg def naa nga mu ne ci nga xam day yokk yu wéy oh. hmm? nga xam université bi yéppi xam-xam dañ ko cay jàngale mooy bi di ko nag yàpp ay ndaw ci réew mi ñu mm-hmm. leen fu xam-xam bu am njariñ nekk dama bëgg yépp daje fi ndax bëgg naa lu ñuy jógeeti di du ñuy jóge ci dëkk bi di ko ci réew mi laa wax mm-hmm. di ko wuti waa réew ma jóge foofu di wut si xam-xam bi fii moo tax mu sarab gis waaye nag <laughs> moom moom ci da ko njël beenoo de ah? bul defe ni daa dikk sëñ baa dikk mu topp ko sëñ seeloog yooyu de ah, ah. sëñ Muntaxa daa gimmi ci loolu déet moom moom dafa yàgg dafa yàgg teral borom xam-xam yi de <laughs> sëñ sëñ sëñ Muntaxa mm-hmm, Mbàkke mm-hmm. yëg naa daana woote ay jotaay sax mm. ngir teral borom xam borom dañu wax ni koo tungoo mu sut la koo bañ mu sut la bu ko tungoom. dëgg la hmm? <laughs> dëgg la waaye këlay tungoom it na baaxi mbagg. <laughs> baa tan la ah. <laughs> loolu dëgg Basir moo ko tungoom. oh Allah Cheikh Basir daa bëgg xam-xam ba bi Serigne Touba taxaw moom. Mm-hmm. di ko jàngal di ko jàngal di ko jàngal ba yàgg. Mm-hmm. Serigne Touba gan ñi ñëw ci moom ak yitte yi mu am. maytu sëñ Bassirou xam na ni lesoy ko Serigne Touba di jox doyatu ko manditu ko ah togguwut defar ci ko daw gànnaar jàngi. sëñ Bassirou sëñ Bassirou. moom lañ tuddee sama sëriñ. waaw daw daw jàngi. allahu akbar ah, bi mu dawee jàngi Serigne Touba am ay fan gisu ko. Mhm. mu ni ana Mouhamadul Bassir. ñu ne ko ah mel na ni daa yokki jéegoom de nee na wuti xam-xam nga gànnaar. Mhm. Serigne tubaa yónnee woolu ko. bu ndikkee mun ko Bassir foo demoon. mu ko damaa demoon gànnaar mu ko loo mu ngi ko xam-xam. ndax xam naa ni yitte ji nga am ci jox ma ko ak yitte ji ma am ci jël ko sag jot maytu ko. ma dem ngir bëgg bëgg lu gën a yaatu xam nga ko Serigne Touba wax hmm. da ko ni jekkil fii warul naa la xam-xam bëgg ci ba ca gànnaar ba ca gën warul naa la mu lay fekk fii allahu xam nga lu xew hmm. daa mujj <laughs> borom xam-xam yi sëñ Basiir war na fekk gànnaar hmm. ñu ñëw ci Serigne Touba di sàkku si ndimbal mbooleeg Serigne Basiir mu leen di jàngal allahu akbar allahu akbar allahu akbar sëñ bu soppee xam-xam war war na ci yàlla <laughs> allah macha kon daal ndaw ñi nañu góorgóorlu ci wàllu yàlla góor mm-hmm. góorgóorlu ci wàllu yonent yàlla muhammad mm-hmm. waaye lu ci topp sëriñ bamba xaadim rasul lu ci suñu mag ñu baax ñi nga xam ni ñoom la ñuy bàyyi xel mm-hmm. ndax looloo la ñu bëgg ndax boo demee Tiwaawan fekk fa Seydil Haaji Malick eh, xam ni boroom xam-xam bu fees del la sëriñ bamba da ko bàyyi woon xel lool fonk ko lool naw ko lool waaye sëñ di Hajji bàyyi xel Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mhm. ba nga xam ni dafa mhm. wax benn bis mhm. bi nga xamee ni tonga yi dañoo toog benn <clears throat> benn waaye daal di ne ah dégg naa sëñ Tuubaa dañ ko tubaab yi yóbbu nañ sëñ bi ni ndokk Seydi Hajji Malik bi ndokk ndokki Seydi Hajji Malik jooju jaaxal leen waaye waaja bàyyi ba ca takkusaan ba ba ba timis ba bëgg a maase mu ne ko mën de sëñ bi démb damaa dégg nga wax baat bu doy waar ndax dañu ni Serigne tubaa tubaab bi jàpp nañ ko. Hmm. ba yóbbu nañ ko. Hmm. nga ni ndokk. Hmm. ndokk jooju daal su ma xam sañaan xam ko. da nga kooku góor séer la. ndokk jooju daal jaaxal nañu lool. ndokk ji daal lu ko indi. mu ne leen ndokk jooju ma wax. damay ndokk bañ tàmbalee ci Serigne Touba. ndax danañ gis loo xam ci moom loo xam ne. bu demee ba ñëw. dana leen wedam loo ba duñ laal keneen. ndokk bañ njëkkee ci moom. ndax ndax buñ jógee ci moom rek pare ci. kon da koo seedeel melokaanu mbaax. ak qualité mbaax ak yéeme ci baax kon Euh, Serigne tubaa loolu lay jàngale mm-hmm. ci taalube mm-hmm. waaye Seydil Hadji Malick loolu lay jàngale ci amante bëggante fonkante nawante mm-hmm. te itam boo demee ñaseen loolu nga fay fekk boo demee ci euh, lay laayeen yi ñoon nga fay fekk ci bëgg sëñ Bamba ak kenn ku ci nekk ci bëgg bëgg lu baax ci la ñu nekk waaye Serigne Touba daal jàngal ñu baax ak te ñu ci yoonu baax ak orienté ñu ci lañ mas a nekkan ci la mas a te moo jar a fonk kon xam naa ni sëñ Modou maa ngi lay laaj ci wax yu mujj yi nga xam ni mm. xëy na laaj laajuma la ko te nga gën ma koo xam mm. nga gën koo jaaxaat ci ndongo yi te mm. def ko sa tàggatoo insha allahu mm-hmm. insha allah ba beneen jëlaay insha allah mm-hmm. mm-hmm. uh, waaw xanaa rek uh, tàggatoo gi moom uh, mooy message bi ñu sëñ Muntaxa jox rek ñun ñëpp ñu def noona te mooy xool leen ci man hmm? sëñ Muntaxa dana xool ci man nan xool ci moom rek roy ko <laughs> nan ko ni dannu <laughs> rek waaw waaw xool liñ ci mën la wax waaw nan nan xool ci moom rek mooy na ko kon kon kon xool ci sëñ Muntaxa laal li may wax mooy hmm. benn nga doon doo doon nangu ab dangoo doon ab ab dongo ab taalu bi hmm. nangoo digg ndigal hmm. topp ci ginnaawam baba muy noonu xalifa général ci loolu la nekk bala ban ba ba toppit bi ci naka la ah sëñ. Ah, xool leen ci xool leen ci man. waaw fi mu aw moom naan ko roy rek. waaw moom moom moom moom mi ngi ci mi ngi ni dana mag ña. Hmm. dañu ku ma ku dem ma dem ku demul ma dem. allah ku dem ma dem ku ma dem. Hmm. Hmm? ni xool leen ci man nañ ko roy xanaa xamu ni eh, waxtu yi jeex na daanaka waaye. li ma ne ci la. fi mu ne soxna Binta Jaxate mi wayur Serigne Mountakha. Eh, taalibe yi xéer gin xéeroon ci jamono Serigne Mountakha. bi mi fi nekkee ay magam. sëñ moom du sëñ Moustapha Bissirou ñooñu euh, sëñ Bint soxna Bint daa ma sa génn seen ay ay yu toog bu ndaw. Hmm. mu ñëw ne li ngeen def fii ñu la la la ñuy defar ab daayira muy na na na na dañ. Hmm? Muntaxa man Muntaxa daa daa toolu fu mu dajalee mbooloo ba ngeen ab daayira na daal di jeex. Hmm? ah waaw waaw juróom soxna ah, koo xam ne ko toppee moo fi maye dara royal mag ñi. Ah? ah sëñ Moustapha si jógee na fii jëm ci sëñ sëñ Abdoulahat. kan fi sëñ Moustapha Bassirou waaw. waxtu nawet nii mu taw ba tooy. waaw kër sëñ Ba taa xem ba comme ndox sëñ Abdoulaye nekk ci biir. Mhm. sëñ Moustapha Bassirou dafa raam. ah sëñ Moussa sëñ Mountakha topp ci raam. ah oh. sëñ Abdoul Hakim topp oh. la ilaha ay donga rek. moo fi may dara sëñ Abdoulaye doon ndegem dégg naa ndongali. sëñ Abdoulaye. te bi nga ko xalifa général la. ay waji al muntaxa a baax waaw yàlla nañ ko suñu borom gi njabootu Cheikhul Xadim yëpp mm-hmm. aar leen ak ah, naa dañuy profité rek siyaar kër gi ñu jóge muy mm-hmm. RTS Touba mm-hmm. ah, bokk ya fa nekk yëpp Pape Kuli Ndiaye ma nga xam ne mooy directeur bi ñu leen leen dokk baax a baax la jaajëfal ci sa laaj bi sa baax ndax lii nga def am nga ñun ko dàq dàq ñu xam-xam ak ñu yar ak ngay ubbi sa émission bi man la jële nekk. Mhm. borom sant bu nekk. Mhm. doore ko ah nga ne kaay ñu ñu dal la ci njëlbeen gi. Mhm. loolu maa ngi la ciy sant di la gërëm. di siyaar Serigne Mor Gueye sëñ Mourou sëñ Cheikh ñoom ñëpp. jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatulah. alhamdulilah rabbil alamin sëñ Mourou maa ngi lay sant yow di la gërëm. Euh, donte xam naa borom xam-xam yu bari xam naa ñu bari waaye ku leen ëpp ci man ci yow gisuma ko man ndax yow ñoo bokk wenn wu jur euh, bi ci des yaa ci xam-xam nga mës a tënku te a te wàcc yoonu ndigal wi sëñ Bamba digle sunu waajur wu tedd wa sëñ Fadilou Guèye yàlla na ko yàlla xaare aljana ak sunu yaay ya su yaay Anta Ndiaye Anta Guèye ak soxna Ngoone Seck yàlla na yàlla barkeel ñoom ñëpp euh, te barkeel leen te dëgëral leen suñu mag ju baax sëñ moor Guèye kenn ku ci nekk ci nun di ay donga ci ñoom mu duy kilifa ci ñun ñu di leen déggal topp seen ginnaaw kon ñooñu la ñuy roy te ñoom itam ñoom la ñuy roy ba léegi ba ci sëñ Mourtala Seck di suñu doomu bàjjen di tànneef sëñ Cheikh Ndiaye Guèye ak ñi ci rek yëpp soxna Adama Sall suñu soxna ah, ñu ngi koy nuyu di ziyaara bu baax a baax soxna Soxna Seck ak soxna Aminta di bàyyi xel kenn ku ci nekk ci njaboot gi di sant yàlla bu baax a baax di ko gërëm di bàyyi xel jataay bi di leen ñaanal yàlla jàmm jataay bu nekk ñu di ko teew lu incha allahu ñu was war a ñëw sponsoré jataay yi ñoo ngi leen di woo ci jataay yi Bamba bi di tasawuru subaan parce que yéene tàmbale tey ñaan yàlla mu continuer ba àjjana incha allahu taala maa ngi sant tey gërëm sëñ abibu ak taxawaayam bu rafet di gërëm Baye Fallou mi nga xam ni muy mooy Baye Fallou si la di borom rajo bi ñu ngi koy ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te wér ak taalibe gi mu am ak nangoo gi mu am ak melokaan bi mu am man sama baay sëñ Fallou la sama taaw sañ Fallou la. ah moom moom la. maam Seex Anta bi ñu koy jox Darou Salaam fukki at ak juróom-ñaar la am. kan gi maam Seex Anta bi ko sëñ Touba rafaatal Daaru Salaam sëñ Touba sañ ba ñëw Touba waaw Maam Cheikh Anta ñëw waaw sëñ ana dëkk ba ko ma nga fa ko ana fere mu ko ñu fa mu ko ñaataa fa yeewoo mu ko juróom-ñeent fukki nit juróom-ñeent waaw ko boo ci bokk mi téeméer mu ko mu ngi ko rafaatal waa fukki at juróom-ñaar la cig ndaw ñu dénk ko dëkk boo xam ne juróom-ñeent fukki nit juróom-ñeent nga ca Daaru ngi gën a dox allahu akbar noonu la Sëriñ Tuubaa def ay ndawam allahu akbar keroog bañ fa demee xam nañu ni dëkk ba ma ngay a dox faw te day gën a dox ba faw ba àjjana insha allah Daaru Salaam mooy këru jàmm gi yàlla na yàlla defal jàmm moo tax mu ne ijaal rujuu'i ilaa qawmi saadatana wala takfinaa yawma jam'il xalqi niiraana waaw yàlla salumu yaa salaam ah, lii wala yàlla fii Daaru Salaam war xam nga loolu loolu loolu te mooy kilifa te moo am leex hmm. tey bànneex kon mbokk yi ñu ngi sant yàlla tey gërëm di ñaan yàlla jaamu ñëpp di ñaan yàlla jataay bi doon jataay bu bokk ci jataay yàlla gërëm di jataay bu texe di jataay bu am solo maa ngi leen di tàggatoo fii ak yéen ba beneen jataay wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sumtum wajuun baadahu saharun wa xuslatun an shuyuuxin bil